asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm soxna Aminata Touré mi fi nekkoon jëwriñ gu njëkk te bark démboo Ndiaye poste ga ñu ko joxoon ca assemblée nationale mu nekkoon fa député ñu daal di koy foqati ci ay loxoom démb mi ngi doon daje ak taskatu xibaar yi foofu nag la daal di xamle ne mbir yi du ko bàyyee mu sedd autolikaay bii di su quotidien du ñu xamal ne kii di soxna Aminata Touré moom nee na la ko wóor ba wóor moom mooy dem Macky Sall moom mooy yónni ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca bureau bu assemblée nationale ngir ñu daal di koy jëlee foofu nga xam ne de moom mooy ca poste ga ñu ko fa tegoona moom moomu di Aminata Touré di xamle ni mbir yi du ko bàyyee kon noonu nee na lépp loo xam ne nag yoon may na ko ko dina ko daal di jël dina ko daal di doxal ci ni mu waree ndaxte lii nga xam ne moom la ñu teg ci ndoddam du dëgg du yoon moom daal di gëm sax ne ki nga xam ne moom mooy Macky Sall bëggatu ko gis foofu nga xam ne moom mooy ca assemblée nationale te pourtant de nee na ma ngi ko nekkaloon ca naaj ba nekkal ko ca taw ba ndaxte nee na ba ñuy amal élection législative yi amul lu mu deful ngir fexe ba coalition am ndam wër na Sénégal yëpp eh, ci naaj bu tàng beeg ci taw bi wante loolu yëpp Macky Sall gisu ko tey jii mu bëgg kaa fexeel Aminata Touré ne lool nag moom moo tax ba tey jii ma ngay woo képp koo xam ne yaa ngi fii ci biir réew mi nga nekk góor nga nekk jigéen nga nekk ndaw nga nekk mag nga nekk kuy liggéey père wala boog mère de famille ñii di intellectuel yeeg ñii jiite entreprise yeeg artistes yi ñi bokk ci biir société civile yeeg politiciens yi képp koo xam ne daal mbirum démocratie tax na laa yéen ñu daal mankoo manko daal di taxawal benn plateforme boo xam ne eh, dafay xeex képp koo xam ne dafa bëgg a faagaagal suñu démocratie démb ba soxna Aminata ture pare nag ci jàkkaarloom googu ak taskatu xibaar yi beneen conférence de presse ma nga doon am ña fa nekkoon moom mooy ñi bokk ci groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar cuulikaay bii li ci quotidien du ñu xamal ne bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu maître Oumar mi nga xam ne moom moo jiite groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ñoom de amul lenn loo xam ne nag jalgati nañu ko jëmale ko ci ci wàllu yoon ci nañu jëlee ki nga xam ne de moom mooy soxna Aminata Touré ne moom mooy ci assemblée nationale beneen daje ak taskatu xibaar yi tamit mi ngi doon am ci diggante Serigne Bassirou Gueye mi nekkoon ancien moom mi nga xam ne démb daal dinay fësal ay kàddu jëmale ko ci affaire bi nga xam ne moom moo nekk ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr ba pare daal di tëkku ki nga xam ne moom moo jiite fa Pastef colikaay bi di l'info di ñëwaat yenn ci ay kàddu yi nga xam ne ancien procureur di Serigne Bassirou Gueye daal dina koy fësal ci yooyu ñu mën cee jàpp ne moom dafa daal di xamle ne ñaari PV moom maanaam procès verbal euh, ci mbirum Adji Sarr ak Ousmane Sonko musu fee am rax ci dolli PV bi nga xam ne sax moom la juge d'instruction daal di yore boobu moo gën a sedd ci kaw ki nga xam ne de moom mooy Ousmane Sonko jolikaay bi jëla Soleil ne kon démb Serigne Bassirou Gueye dafa daal di indi ay leeral jëmale ko nag ci tuuma yi nga xam ne kii di Ousmane Sonko su ne daf koy teg ci ndoddam jolikaay bi jëla Quotidien ne kon démb Serigne Bassirou Gueye moom de daal di nay défendre boppam ndaxte bugg bëggul ñuy jël ay tuuma di ko teg ci ndoddam te it ma ngay wax ki nga xam ne de moom mooy Ousmane Sonko de su fekkente ne dafa yore rapport bi nga xam ne daal gendarmerie daf ko fësal jëmale ko ci wàll gi ni mel moom mun na kaa génnee ancien procureur démb kon dafa sol ay yére défenseur lool loo coolikaay bii di réew mi quotidien daal di fësal xëtam bu njëkk di ñu xamal ne Serigne Bassirou Gueye moom ne na nag tuuma yi nga xam ne kii di Ousmane Sonko ma ngi koy ko nangooti te it la ca ëpp l'observateur nekkoon démb Serigne Bassirou Gueye wax na ñëpp ne daal moom li ñu koy tuumaal wala boog li ko kii di Ousmane Sonko di tuumaal dara nekk ci dëgg aujourd'hui bi di la témoin diñ ci yokk di ñu xamal ne moom daal di ne ne su fekkente ne sax yëkkati na ay kàddoom la ko waral moom mooy ne toog na ne patt pataaral ba dossier bi tàmbalee ak léegi wante dafa mel ni ne kii di Ousmane Sonko saa su ne rek day ñëwaat di fësal ay kàddu yu mel ni xamee di ko teg ci ndoddam nee na moom ñi nga xam ne ñoom ñooy njabootam ñi ko jege ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy ay xaritam ñoo ko daal di wax mu daal di tontu euh, ci kàddu yi nga xam ne moom la Ousmane Sonko euh, di faral di yëkkati loolu kon moom moo tax euh, ba démb mu daal di ci fësal ay kàddoom ci biir colikaay bi di l'observateur suñu naataango yi dellu si waat du ñu xamal ne keroog ba Serigne Bassirou Gueye pare ci kàddu yi mu yëkkati woon ci le bureau politique bu Pastef ñoom it daal di amal ndaje ak taskatu xibaar yi ngir daal di tontu Serigne Bassirou Gueye kii di Abbas Fall te mu bokk ci biir bureau politique bi ñoom la ñu gëm moom mooy ne kii nga xam

Mbour loolu nag daal dina fay indi jiixi jaax ak pëccoxoo ba sax fu mu nekk nii colikaay bii di critique la mu gis moom mooy ne mbuur ak soow bi am ci diggante mag yi ak Idi ma ngay tàmbalee di forox de foofu nga xam ne moom mooy ci diwaanu Thiès. ñu jeexale ko wàllu tàggat yaram ci wàllu football CHAN 2023 tey si ngoon Sénégal dina daje ak waa Mauritanie ñaar ñoo xam ne kon dañoo dend trop ñoom ñoo daal di xëccoo benn place ci wàllu demi-finale Pape Thiaw daal di gis ne li leen war rek moom mooy gagné ngir dalal askanu réewum Sénégal ci wàllu lamb ci biir colikaay bii di sunu lamb suñu naataango yi seq nañu waxtaan ak May Ñing moom mooy tàggat ki nga xam ne moom mooy Tapha Tine mu daal di gis na ci combat bi nga xam ne mbërëm bi di ko fas yéene seq ak du nekk combat ah, de ndaxte combat boobu xeex bu métti xeex bu tar ah, moom moo fa nar a am te nag ci wàllu technique ak tamit ci wàllu physique faw ki nga xam ne moom mooy Tapha Tine daal di waajal boppam bu baax a baax ngir mën a am ndam ci kaw ki nga xam ne moom mooy Bombardier lii lii moo nekkoon mbox jolikat a fës ci biir Mesdames et messieurs, bonjour. Aminata Touré engage la résistance. Elle ne compte pas se laisser faire. Elle n'entend pas aussi croiser les bras face à l'injustice dont elle dit l'objet. Hier, l'ancienne première ministre, déchue de son mandat de députée par le bureau de l'Assemblée nationale, a fait face à la presse et elle se dit prête à saisir toutes les voies et recours juridiques nationaux et internationaux pour mettre fin à cette injustice. Aminata Touré nous disent toujours nos confrères de Sud Quotidien est convaincu que cette forfaiture est commanditée par le président Macky Sall qui ne la supporte pas, elle qui était son ancienne tête de liste à l'Assemblée nationale et qui a parcouru kilomètres sous le soleil et la pluie. Et devant ce qu'elle qualifie de forfaiture, l'ancienne première ministre compte user des voies juridiques que lui offre la loi. Elle compte saisir toutes les juridictions compétentes. Et toujours de opposition au pouvoir aux dernières élections législatives. Aujourd'hui, cette quête d'un troisième mandat est une ligne de fracture dans ce pays avec d'un côté ceux qui veulent préserver leurs intérêts personnels, quitte à faire brûler le pays, et de l'autre ceux qui sont déterminés à défendre la démocratie, l'attachement aux valeurs de justice sociale, de paix, d'équité et de respect de l'autre. Dès lors, elle lance un appel à tous les démocrates de ce pays et à tous les hommes, femmes, jeunes et vieux, travailleurs, intellectuels, dirigeants d'entreprises, artistes, sociétés civiles et politiciens et pris de justice en vue d'une mobilisation massive autour d'une plateforme nationale de défense de la démocratie en vue de préserver les acquis démocratiques. Et hier soir, c'est comme qui dirait que c'était la journée des conférences de presse, car après celle de Mimi Touré, nos confrères du journal Sud Quotidien nous font savoir que le groupe parlementaire de la majorité a aussi

Euh, clément pour Ousmane Sonko que celui qu'il dit être à son avantage. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères d'ajouter que l'ancien procureur Serigne Bassirou accusé de complot dans l'affaire Sweet Beauty par le leader de Pastef les Patriotes, a brisé hier le silence. Serigne Bassirou actuel président de l'OFNAC, est sorti de sa réserve pour, dit-il, clarifier à propos des accusations qui sont formulées à son encontre par Ousmane Sonko depuis le début du qu'il n'est pas là pour polémiquer, encore moins pour charger l'inculpé. Donc hier, Serigne Bass était à la barre, écrivent nos confrères du quotidien Le Quotidien et l'ancien procureur défie le leader du PASTEF de publier le vrai rapport de la gendarmerie. L'ancien procureur dans les habits d'un défenseur, c'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal Rewmi Quotidien qui reviennent sur le réquisitoire de Serigne Bassirou Gueye contre Ousmane Sonko dans Serigne se dit innocent de tout ce dont on l'accuse. Et dans ce dossier, nous disent nos confrères du journal L'Observateur, Serigne Bassirou était attendu depuis bientôt trois ans que dure le dossier Sweet Beauty et son lot de rebondissements. Accusé de tous les maux d'Israël par Ousmane Sonko, inculpé de viol et menace de mort contre la victime supposée Adji Sarr, l'ancien procureur Serigne Bassirou s'est décidé à sortir de sa réserve et c'est pour lui ont imposé le silence tout ce temps, mais il a de la famille, des amis, des collègues et des supérieurs qui lui mettent la pression et attirent son attention sur le fait que personne ne le défendra s'il ne le fait pas lui-même. Alors, il a donc décidé de se défendre et hier, nous disent nos confrères du quotidien Le Témoin, face à la presse, l'ancien procureur de la République a nié avoir voulu faire arrêter le leader de PASTEF en mars 2021. Il s'est aussi en procès-verbal d'enquête préliminaire de la gendarmerie et a menacé Sonko d'une riposte foudroyante s'il continue de l'attaquer. Signalons que la réplique du bureau politique de PASTEF ne s'est pas fait attendre dans le journal L'Observateur. Nos confrères décrivent que le bureau politique de PASTEF est revenu à la charge et d'après les seconds couteaux du leader de PASTEF, l'ancien procureur cherche à préparer l'opinion sur les secrets du rapport de la gendarmerie Sarr est toujours revenant à la charge. Le député Abbas Fall, membre du bureau politique de PASTEF, estime qu'en tant qu'ancien procureur de la République, Serigne Bassirou ne devait pas parler de ce dossier. Le chef de l'État Macky est attendu le février prochain à Thiès et selon nos confrères du journal Critique, c'est la guerre larvée entre apéristes et responsables de Rewmi en prélude à cette visite. Pour les ténors du parti présidentiel, toutes les sabotage de l'accueil monumental prévu pour donner l'impression que tout roule dans la cité du rail. Et à en croire nos confrères du journal critique, le Mbourou Aksow dégage déjà une odeur de puanteur.

faudra être techniquement et physiquement prêt pour le battre. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.